mbokk yi xibaar yi suba yi di bàyyeekoo fii ci Sahel Network TV bàyyeekoo ci capital bi Gambia li gën a fes nag ci boppi xibaar yi moom lañ leen a njëkk a jukkil njiiti réew mi muy président Adama Barrow wax nañ ne baalal na téeméeri nit fukk ak juróom ci ñi nga xam ne ñoom la caabi féete woon ginnaaw nguur gi wax nañ ne génne nañ lu toll ci juróom-ñaari téeméeri million bu teg fanweer ak ñeneent ngir dimbale ko néew ji doole ji fii ci biir réew mi am na këru berukaay yoo xam ne fas nañ yéene taxawal ko foofa ca NBR GPA am na ñu leen laaj ne nañ gën a lu ci gis ne li ñu wax ne na lépp taxaw ak soriwante gi ne nañ ci taxaw taxaw bu dëgër mbokk yi dina ñëwat ak yéen wàll bi yaatalal leen li nga xam ne moo gën a ci biir xibaar yi ba njawaali may la muy bàyyi ko fii ci sa Sahel Network TV Banjul Coronavirus is a serious and deadly disease affecting the entire world. Gambia continues to register more positive cases. Do not wash your hands with stagnant water. Make sure you wash your hands with running water. Avoid social gatherings, naming ceremonies, and weddings. Avoid eating from the same bowl. practice social distancing. To protect yourself and your family and to stop the spread of coronavirus, stay at home. ci yàttalal leen njiiti réew mi muy président Adama Barrow wax nañ ne bàllal na lu toll ci téeméer fukk ak juróom ci ñi nga xam ne caabi daf leen féete woon ginnaaw ñoo xamante leen ci ay prisoners ngir rek bañ tasaaroog jàngoro ji ñoo wax Covid 19. moom njiiti réew mi xamle na lii gannaaw bi nga xamante ne nii génn na ñeenti yoon pour waxtaan lu aju ci jàngoro bi ñoo wax Covid 19 fii ci biir réewi Gambia. ñi nga xam ne nag ñoom la caabi féete ginnaaw mu jéggal leen dale ci fi nga xam ne moom mooy prison bi nekk ci Mile 2 ak prison bi nga xam ne moo nekk ci Janjanbureh muy kaso bi nga xam ne moom moo nekk foofu tamit ci Joshua mbokk bi tey rek président Adama Barrow wax na ne génne nañ lu toll ci juróom-ñaari téeméeri million fanweeri million ak ñeneent ngir jënd ko ay bagages yoo xam ne fas nañ indi dimbale ko néew ji doole ji fii ci biir réew mi Banjul ba koy na nee na nag ndimbal gi nga xamante ne ni moom lañ jënd dem na ci li nga xam ne moom mooy maalo sukkur diwlin pour képp koo xam ne rek borom kër nga fii ci biir réew mi te it nag wut ak juróomi téeméeri million bi nga xam ne génnee nañ ko pour dimbalee ko euh, bunti wérgu yaram bi nga xam ne ñoom ñooy xeex jàngoro bi nga xam ne moom la ñuy wax Covid 19 président bi xamle na ne. dëgg nak li, lii dafay wone njub ak leeral bi nga xam ne moom moo nekk ci nguur gi taxawal nañ ne ñoom ñooy fare li nga xam ne moo jëm ci wàllu koppar ak dépasse li nga xam ne moom mooy jamono ji nga ci lañ ba rek képp koo fas nga éene joxe sa dolle ci réew mi ngir xeexee ko jàngoro bi foofa nga koy jaaree ndax taxawal na mbootaay boo xam ne ñoom ñooy saytu bi nga fas éene duga pour ñu xeex jàngoro bi ñoo wax covid 19 jëwriñ bi nga xam ne moom la ñu dénk bunti wér-gu-yaram bi ñoom nag xamle nañ ne dinañ ubbi benn këri berukaay foofa ca euh, not Bank Region ci biir réew mi fii ndax buñ bàyyee xel ki nga xam ne moo feeñal loolu muy ki nga xam ne moom mooy borom kër yi bunti jëwriñ bi ñu xamee ko ci du Njaay moom nag wax na ne foofa ca North Bank Region képp koo xam ne am na fa jafe-jafe wala saytu nañ ne jàngoro bii mu ngi def ay jeexintal ci moom dañ koy indi fi nga xam ne moom mooy Banjul waaye nag bu ñu fa sampee li nga xam ne moom mooy benn ci këri berukaay dina mën a yombal seeni dundin foofale ak seeni liggéey ba tey mu ngi wax ne lépp loo xam ne daal moom war nañ koo am ci ndigal am nañ ko ba tax dinañ ko fa taxawal ci lu gën a gaawee. jëwriñ bi nga xam ne ba léegi rek ñoom ñoo saytu wàllu wér-gu-yaram bi ñoom nag yëkkati nañ seeni i kàddu jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ferry service bi nga xam ne moom mooy Ports Authority di leen xamal ne leen dañ war a gën a dëgër ci taxaw ci li nga xam ne moom lañ wax ne nañ moytu jàngoro ji tasaaroo fii ci biir réew mi. ki nga xam ne nag moom moo fësal loolu muy ki nga xam ne moom mooy borom kër yi bunti wérgu yaram bi ñu xamee ko ci docteur Moustapha tey moom nag wax na ne ñoom ñu ngee bàyyi xel bu baax a baax te it nag dañ gis ne foofu la day bunte la boo xam ne bunte bu am solo la ci biir réew mi ba tax na ñoom dañu war a gën a góorgóorlu ngir bañ jàngoro bi nga xam ne moom la ñu wax coronavirus mu tasaaroo fii ci biir réew mi mbokk yi loolu lañ leen amaloon tey jii ci xibaar muy ko fii ci sa xel Network TV Banjul ba njawaali mbay moo leen doon jottali di leen gërëm di leen sant jox leen dig daje bi beneen yoon.